mbokk yu tedd yi seetaan seen émission bu am solo bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziara te di leen ndokkeel itam ci weeru tedd wi nga xam ne mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ndokkeelaat itam ci weeru tedd wi ko jiitu di weeru safar di siyaare suñu kilifa gu tedd gi Cheikh Mahamadul Muntaqa ak mbooleem jullit yépp ak mbooleem taalibe yépp ñu amaan mbégte bu baax a baax di teewaat ci barab bu tedd bii ngeen di ànd ak seen kuréel liggéeyal ku tedd gi di ay ndaw yu jug ngir tisaari xam-xam ak njàngaleem seexul xaddim ba ñëpp mën cee jot te na mu gën a euh, jaadoo ren euh, ni nga xam ne itam noonu lañ ko baaxoo defee saa yu màggal gi ñëwee ñu di ko waajal di ci def ay waxtaan ak ay bis yu am solo lu mel ne rabian safar bi noonu itam lañ koy amale saa yoo xamee ne gàmm gi ñëw na ñu ciy defal ay amal ay waxtaan ngir waajale ko bis bu tedd boobu bisub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu euh, ci loolu nag ren ji ñu lëkkaloo ci ak daayira muxaddamatul xidma di mbooloo mu am solo lool di amal ab liggéey yu am solo ci jumaa yi tuubaa ji ñu leen di ndokkeel bu baax a baax itam seen liggéey ak seen taxawaay bu am solo bi ñu amal ci màggal gi ak mbooleem yi weesu yépp kon ci année bi ci at mii kuréel liggéeyal gu tedd ki ñi ngi ànd ak waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy def di ko waajale gàmm gi waa muqaddamatul xidma ak seen télévision bu mag bii di CMT TV ñu am mbégte nag di ànd ak suñu mbokk Sëriñ Abdou bu Bousso mu fas yéene waxtaan ak ñun thème bu am solo lépp rek jëm ci wàccaayu gàmm gi ak mbooleem li ci aju incha allah buñ ko joxee kàddu gi mu nuyoo rek buñ noppee ñu mën a dugg ci waxtaan wi ak thème bi nga xam ne moom la ñu fas yéene traiter incha allah kon sëñ Abdou Khadir bisimilah. jërëjëf sëriñ Cheikhouna bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al wa moolana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimi ajmain sëriñ Cheikhouna ñu ngi lay delloo ab nuyoo di ziar mbokk yépp ci weeru tedd wi jiital ci nuyoo bi ak ziar bi ak ndokkeel gi sunu kilifa yi di ci jiital kilifa gu mag gi muy Cheikh Mahamadul Muntaqa di ñaan di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko tëbb ko kàttan ak man-man ba mu sottal lépp mhm. ba naalaat lépp ñu ànd ko ak moom yépp sotti ci kanamam di nuyu bu baax a baax a baax ak a sargal ak a ndokkeel it e, kuréelu liggéeyal ku tedd ki comme ni nga ko waxee ñu ay ndaw yoo xam ne dañoo jóg ngir liggéeyal sëriñ bi ci gën a wane jëmmam mooy kan gën a wane xam-xam bi nga xam ne moom la sëriñ bi laa ambool waaye gën a wane e, njariñul mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo toppoon sëriñ bi loolu ñu leen ci ndokkeel bu baax baax di leen ci sant di leen seedeel seen liggéey bu rafet leen wax waaw leen góor yoon waa ngoog di ci ànd ak yéen ci fu ngeen mën di nekk waaye di nuyu bu baax a baax tey di leen jot li nuyoo ak cant gu jóge fii ci daayira Muxaddamatul Xidma rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo yor chaîne bii di GMT TV incha allah di fa yéene ànd ak yéen waxtaan wi ci luñ ci suñu xam-xam bu gàtt may incha allah sëriñ Cheikhouna macha allah jërëjëf Cheikh Abdou Khadir kàddu yi am na solo lool nuyoo bi xam naa ngir ñu bañ a guddal rek dañuy dem euh, directement ci waxtaan wi waaye ñu xam leen thème bi ñu fas yéenee waxtaanee incha allah mooy jaari jaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir mbindi Cheikhul Khadim maanaam naka la Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu nettalee histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir ay mbindam mu mel ne nag thème bu am solo la ndax xëy na ñu bëree bëree bëri. ñi ngi dégg jaar jaar yonent bi wala siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci biir mbindi mbindi Seexul Xadim la taala anhu mu mel ne lu tisaaroo waaye incha allah ci biir waxtaan wi sëñ bi danañu leeral bu soobee yàlla naka la sëñ bi bindee ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte dafa nekk ci ay barab yu faccanti ko waaye moom xëy na dinañu ko dajaleel ba lenn lu ci nekk ci jaar jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam fan la ko sëñ bi indee ak fan la ko kon bala ñu dugg ci waxtaan wi ak sëñ bi xam naa rek ñuy njëkk a indil lan mooy njariñal waxtaane jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir mbindi sëñ bi njariñ li nga xam ne moom la waxtaan wi am jërëjëf sëriñ Seexuna euh, ci laaj bu am solo boobu nga xam ne moom nga jiital te muy laaj bi war a jiitu mhm. ndax yaakaar naa lépp lu ñuy waxtaane baax na lool ñuy xam solo su waxtaane ko lan la mën a jur mhm. comme ni nga ko waxee jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di taarixam ni ñëwee ci biir mbindum sëriñ tubaa dafa tusaaroo dajalewuñ ko ci benn barab loolu moo tax xëy na di ci gëstu ak di ko jéem a dajale mën naa indi ab coona ak jafe-jafe ci koo xam ne xóotu ci biir mbindum sëriñ bi wala xóotu ci biir siira looloo tax it waxtaane ko am solo ndax kon dafay mel ne bu ñu ko waxtaanee mooy sottal nañ benn jubluwaay ci jubluwaay yi taalif tamuy dajale lu teqalikoo euh, sëriñ bi nag ni siira dikkee ci biir am mbindam comme niñ ko waxee tusaaroo gum tusaaroo nit ci ay xasaayit yu wuute ak ci sax yeneen xeeti mbindin yoo xam ne mëneesu ko mënees na ko ba ñu tuddee ay xasaayit bari gum bari ak itam tusaaroo gum tusaaroo moo tax léeg-léeg ñun murid ji kenn ku ci ne mën na caa dara di ko barkeeloo yaakaar ne barkeelu rek la ca sañ dëgg la barkeelu gi baax na denc gi baax na waggar gi baax na waaye jariñu ci it moom it ba beneen jubluwaay la boo xam ne euh, dafay jubluwaay boo xam ne dañ ko war di amee ci mbindum sëriñ bi kon xasiida yi barabu barkeelu la waaye barabu jariñu la ñu gis ne nag ci biir xasiida yi am na ci xasiida yu baree bare yoo xam ne làmm na siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne mën nañ cee jàngate lu ñu defare suñu àdduna waaye mën nañ cee jàngate lu ñu defare suñu àllaaxira kon waxtaane ko am na solo waxtaane ko am na solo it ndax bu ñuy waxtaane jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu dikkee ci mbir mbindum sëriñ bi danañ tontuwaale ñi foog ne sëriñ bi bindut ci siira moo xam dañ koo foog foog goo xam ne dañ koo teg ci ak xam wala dañ koo foog foog goo xam ne dañ koo teg ci ak parparloo ndax bari na ñoo xam ne dañuy jàpp ne fii ci Sénégal mm. wala ci bitim réew am na ci gaay yu baax yi ñoo xam ne bind nañ ci jaar jaar yonent bi waaye Serigne Touba nag bindu ci dara loolu kuréer moo koy wax waaye ku àlliwoom soriwut ci biir mbindum Serigne bi moo koy wax ndax dafa am ñaari yu am mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi ak jël sa xalima di bind ci jaar jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jege waaye nag mënuñoo teqali ko ndax ki nga xam ne moom mooy bind ci siira Euh, mënut a bind ci siira ba mu jeex te du taggaale yonente bi ndax fooy waxee ci melokaan yonente bi fooy waxee ci ak njàmbaareem fooy waxee ci digganteem ak i noonam ni mu leen daan noote moo xam ci wàllu yoon wi muy jaar la wala moo xam ci doole la wala moo xam ci xam-xam la booba yaa ngi tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kii tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk wax ci jaar jaar yonente bi sallallahu alayhi ndax ci ay jaar jaaram ci ngay mën a génne ay jalooreem ba mën koo tagg waaye bu ñu waxtaanee ci jaar-jaar yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu dikk ci biir mbindum sëriñ bi danañ tontuwaale ñi nga xam ne dañoo jàpp ne sëñ bi da daan bindee ci xaal rek xaal mooy pësséef ak mbëggeel gu ëpp rek moo ko daan yóbbu ci mu bind ci yonent bi sallallahu alayhi ba daaw ci bàyyi xel wàllu xam-xam loo xam ne bu ñu ko gëstoo ci wàllu xam-xam dana mën a wér déedéet ndax dafa am foofu ñaar yu ñu fi jaawale yoo xam ne bokkuñu li nga xam ne dafay jugee ci xol di ay sentiment di bëgg-bëgg loolu dafa am barab bu boppam bu muy jógee mooy ci xol lay jóge bu dee nag wàllum gëstu ci wàllu xam-xam ak wàllu wérifier li wér ak li wérut loolu jëfi xel la léegi nag ki nga xam ne moom a dëgg mooy ki nga xam ne lépp lu ñëw ci xolam da koy natt ci nattuwaayu xel te mooy nattuwaayu xam-xam ak koy soog a sottil doomu aadama yi ñu jariñoo ko suñu sëriñ bi nag di Seex Ahmadu Bamba radiyallahu anhu noonu la daan tagg yonente bi moo tax ci biir am taggam yépp dañ ci gis ne danañu nettluwaale histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu histoire boo xam ne boo ko vérifié danga mën a gis ne lépp lu wér la ndax lan pësséef beeg bëgg géeg jeex gi tàkk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam teewutoon it lépp lu muy wax boo ko mën a boo ko lu ñu mën a vérifié lay nekk lu ñu mën a teg la ci ay nattuwaayu xam-xam kon daal xëy na tomb yooyu yaakaar naa bu ñu sukkandikoo danañ mën a gis ne waxtaane siira ci biir mbir mu bi am na solo macha allah Cheikh Abdou Khadir kàddu yi am na solo lool mu mel ne njariñal waxtaan wi suñ ko xamee rek day gën a tax ñu gën a bàyyiwaat xel waxtaan wi ak thème bi nga xam ne am solo gi nga xam ne thème bi am na ko solo waaye itam wax nga ci biir wax ji lu am solo mooy ñu bari dañoo jàpp ne sëñ bi xëy na bindul ci siira loolu it muy loo xam ne euh, lu euh, xam-xam dàq na ko ndax gis nañ ci mbind sëñ bi yu bare bari xëy na dafa tisaaroo waaye gis nañ ko ci mu wax ci lu baree bari ci ci siira kon boo ñu mënoon a jox ay ay ay exemple wala ay ay ay ay ay ay misaal ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa naka la ko sëñ bi indee ci ay mbindam yan ak yan nga ñu ciy indil ak naka la ko indee ci xasida yi waaw sëriñ Cheikh naa yaakaar naa bu ñu ci bëggee joxe ay misaal mën nañ ci am ay misaal yu baree baree bari yu bari lool sax yoo xam ne mën naa am ay jotaay yu baree bari mhm. yu bokkul ndax dafa bokkoon ci jubluwaay yi taxoon sëriñ bi daan tagg yonent bi sallallahu alayhi mooy feeñal ay jaar-jaaram loolu dafa bokkoon ci jubluwaay yi taxoon sëñ bi daan tag yonente bi sallallahu alayhi te loolu sëriñ bi moo ko waxal boppam moo ne woon wa huwa di la azalu dëhra madihahu xirsan ala dicri ma qad xaaza min siyari loolu dafa leer nañ kon ci ay jubluwaayam la bokkoon waxaat ne amel naa boru yonente bi sallallahu alayhi naa ko bor boru di ko tagg bor ba mooy lan mooy di ko tagg-tagg yoo xam ne dafay gën daf koy gën a fésal daf koy dama ko ciy joobe mu koy gën a fésal di gën a wane ay ngëneelam alaya li wajhi llaahi jalla jalaaluhu laka dëhra am daaxun mazaayaaka tarfau yauddu mazaayaaka allati la intihaa laha madixi alzamtuhu nafsa bi saayi kon nga gis ne loolu ay jubluwaay la woon ci moom bu ñu dee xool nag siira jaar-jaar yonente bi sallallahu alayhi dafa bari ay fàcc dafay mel ni borom xam-xam dañ koy séddale ci ñetti xaaj mm-hmm. am na diggante bu ñu wax al mabda mm-hmm. am na bu diggante bu ñu wax al am na bu diggante bu ñu wax al mab'as mm-hmm. mabda mooy fi suñu borom bindee doomu aadama yi ba keroog yonent bi sallallahu alayhi wasallam di mooy avant yonent bi di ñëw ni ko suñu borom waajale ni mu ko xamlee waaye it ko uh, uh, ni ko présenté yeneen yonent bi yeneen yonent yi salaatu wasalaam bu dee mawlit bi mooy fi yonent bi feeñe jukko yim teel a commencé feeñal ci ak mbaax ci ak kóolute ak tamit ci bëgg xeeñtu lu baax ak bëgg lu baax ba ni mu ko yónnee waaye fi mu ko yónnee ba keroog ñu koy mujj gis dafa mel ni foofu fépp nag foo ci rek sëriñ bi radiyallahu anhu andi na ci eh, ay ay ay ay ay xew-xew ak i ay taxawaay yoo xam ne mën nañ ko jàngate ci biir mbindum sëriñ bi bi ci jiitu mën nañoo wax ne mooy askanu yonent bi sallallahu alayhi wa sëriñ bi wax na ci xam ngeen ne askan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa yaatu boo demee ci téere siira yu mag yi am na ñoo xam ne dañuy xaabaabal wax la yonent bi ba ca aadama waaye dañuy wax ne askan wi li ci wér nga xam ne kenn amu ci benn nattable mooy fi commencé ci yonent bi fi tàmbalee ci yonent bi ba ci maam ju ñu waa Adnaan bi ñëwee ci sëriñ bi loolu rek lañ gis mu nettali ko ci askan yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa mujje wax ja mooy dal mahfuuzu fil xabari lii moo ci wér te fi ci wér rek foofu laa ci yem loolu nga xam ne moom la ci li bu ñu demee ci téere yi gën a wér ci téere yi xadis yi te ba ci gën a wér mooy saxiixul buxaari loolu rek la nettali yem ca foofu la sëñ bi di wax naan muhammadun najlu abdillahi man nasabu li shaybat alhamdi najli haashimil wazari wa huwa ibnu abdu manaaf ibnu qusayya wa dhaaka ibnu kilaab ibnu murratin axil xafari nga xam ne noonu la euh, continuer ba askan wi jeex waaye askan wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ni yàlla teelee commencé tànn ba ba mu egsi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yooyu tamit sëriñ bi wax na ci euh, muy loo xam ne ay xadis rod na ci boroom xam-xam yàgg nañ cee wax ci sharafu nasabi rasul alayhi salaatu wasalaam loolu sëñ bi bi mu ñëwee moom wax na ci donte ci biir ay xasaayit la ko wax am na fu muy waxee naan muhammadun sayidul atbaai war ruasa al mustafa al mujtaba saafi min al kadari mooy al mooy moom la tànn mooy ki nga xam ne amul benn sikk daaka al karimu alladi ma zaala muntaxaban min afdali nnaasi mud anshaahu lqadaru mooy ki nga xam ne suñ borom du ko yàgg tànnal ay maam yu baax nadbun karimun salilun min karimin salilin min kiraamin xiyaarin saadati l usuri waaw qad ustufi min shiraafin ma ata ahadun minhum bi fahishatin turwa anil nga xam ne ay maamam dañ leen a tànn kenn mus cee dox tànki caaxaan am na feneen fu mu koy waxaat wa huwa alkarimu alladi ma zaala muntaxaban min saadatin kullu xarmin minhum faxama dañ ko tànne ci aw askan woo xam ne képp ku baax rek ci askan woo nga soqi ko nadbun karimun min axyaari wal kurama gurrun jaxaajihu gurrin fadluhum azuma bu ñëwee ci judd gi moom it wax na ci lu baree baree bari am na ci euh, xasida googu nga xam ne moom la euh, bindoon bi mu dem Mbàkke Bawol ñaari xasida yi am na am na ci boo xam ne leeral na ci ne bi euh, fukki fan ak juróom-ñaar ci la Yonent bi sallallahu alayhi feeñ jamono ci rabiul awal waaye tamit ci la rañaan bu ñu waaw bu ñu xoolee it ci ci ci ci ci yeneen xasida yu baree baree bari sëñ bi béral na ci kañ la Yonent bi sallallahu alayhi feeñ jamono ak donte sa borom xam-xam dañ ciy wuute ak wuute gu mag a mag a mag am ñoo xam ne dañ koy génne ci weeru gàmmu mm-hmm. di ko yóbbu ci weeru koor ak yeneen weer yi sëñ bi indi ci position wax ci wax ju leer te wax jooju mooy wax ji nga xam ne moom la boroom xam-xam yi ëpp wax mm-hmm. am na fu muy waxee naan mawlidu ahmada rabiul awwali agna ani suali wa taxawuli mooy kon man position bi laa ci am rabiul awwal ci la feeñ jamono am faneen fu muy wax naan rabiul awwal moo kawe weer yépp ndax la ndax yonent bi sallallahu alayhi ci la ci la ci la feeñ jamono faaxa rabiul awali shuhura bi mawlidi alladi bada mashhura chahru rasulillahi bahjatu shuhur wa ramadaanu chahru itqin wa tuhur ak tamit gis nañ buy wax ci e, juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu koy lëkkale ak xew-xewu ñay wa bi nga xam ne Abraha ànd nag soldaar yi bëgg a bëgg a màbbi kàbb gi te wax nañ ne dana ñëw ci kanam ci biir waxtaan wi xam nañ ne ci même at moomu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam judd gis nañ ay xasidaam yu baree bari mu koy tëggee yawmul isnayni di ci junñu loolu gis nañ ay xasidaam yu baree bari mu koy tëgg ci fukki bayit ak ñaar di ci junñu fukki fukki fukki fan ak ñaar yi nga xam ne ci la yonte bi sallallahu feeñ waaye guddi gi ngëneel yi mu am ak tamit fi mu fekkoon jamono ak fi mu ko yóbbu loolu it Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu wax na ci wax na ne mawlidu afdalil wara muazzamu alayhi taslima azimin yu'zamu wulida abdullahi wa huwa xasamu nuurun lahu la yantaxihi qazamu li mawlidil muxtaari sirrun yaktumu dafa am mbóot moo xam ne moom la àndal saw istawnuhu anil wara yanxatim mbóot ma am na fu mu ko wanee tuuti mooy ne laylatu mawlidin nabi laylatu maxwir riya bi sikk sàkk yi mu fekkoon yépp bi mu ñëwee fekkoon nit ñi di bokkaali ñiy gëlëm bi yonte bi sallallahu alayhi bi mu juddoo sikk sàkk yi yépp dafa far ndax mooy ki nga xam ne moom moo war a leeral jamono laylatu maxwi bi coono bi mu fi fekkoon nit ñi dafa mel ne amatuñu woon xamatuñu woon fu ñu jëm gëlëm ci seen wàllu àdduna seen dund ci wàllu social yàqu seen dund ci wàllu économie yàqu bi yonent bi sallallahu alayhi coono yi bi mu ñëwee ci ci la ci la ci la war a far wa tuhriti ñi daan jaamu xërëm daan def naka su dul noona seen diine yàqu yonent bi sallallahu alayhi moo ko war a régler biha najaat wal falaax maa sururi wan najaax biha rabaax wa salaax maa indifaai niqam nga gis ne kon juddoom gi ay ngeneen kase la te yooyu Sëriñ Tuubaa wax na ci waaye li njëkk am njëkk muy juddu te mooy almabda bi ma doon wax mhm. ñëw na ci mbindum sëriñ bi mhm. bokk na li ci ñëw mooy yonent bi sallallahu alayhi avant mhm. suñu borom di bind aadama ci la ci la waxoon ci la déclaré woon ñépp ne leen yonent bi sallallahu alayhi am na ak nubuwa soloo naa ko ku ñu yónn la ci mujj jamono nga xam ne foofu borom xam-xam dañ ciy balloo ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la suñu borom njëkk a bind ci yonente yi waaye moom la mujj yónni waaw loolu sëriñ bi wax na ko ay yoon yoon nee na ba mu bindee ruu yépp boo waxoon ne alastu bi rabbikum ruu yonent moo njëkk a wax ne balaa waaw loolu moom lay wax naan baana li jumlatil malaa'ikil kiraam kawnu rasulillahi lil xalqi imaam moo jiite ñëpp baana bi xawlihi bala yow ma alastu fahada siwa salli wa salliman man qad ajaaba bi bala ma alastu awwala xabla dawi takallum avant kenn wax moom moom la waxoon ne ah kay yaa ñu moom alastu bi rabbikum huwa allasi faaqa siwa min al baraya bi huda xata bada kat bu suma fi arshika al muazzami ba suñ borom bindee aras tamit ci la bindoon tur yonente bi sallallahu gis ne lii mooy avant yonente bi sallallahu alayhi wasallam di waaye tamit nga xam ne wax nañ ne boobu lañuy bind aadama mu nekk bay na bay na tiini wal ma bay ruuxi wal jasad nga xam ne boobu mi ngi mi ngi nekkagut sax jëmm ju sotti foofu la yonente bi foofu la suñ borom déclaré woon ne Euh, yonente bi sallallahu alayhi mooy ab yonente lay doon xaazal aminu min al mawla nubuwatahu xidman wa aadamu fi salsaali xad lubida nga xam ne booba ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy mooñ sabata euh, kawnuhu nabiyan wa sanad wa jadduhu aadamu tinun wa jasad waaw nubuwatuhu xablal baraaya xadin jarat lahu sabqu xiinal jaddu fi tini yuxzanu euh, waaye tamit suñ borom am na lu mu defoon avant yonent bi ñëw mooy képp ku fi mus a ñëw di ab ndawam waxoon na la ne la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama ko yónni bu ngeen fekkantee jamono na nga ko gëm ne la wax jàpp nga ko wala jàppoo ko nga ne ko aha kay jàpp naa ko wa id axada allahu mithaqa nabiina lama aataynaakum min kitaabin wa xikma summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum bi lima maakum la tuuminunna bihi wala tansurunna ku ku ku kum ci taseel jamono na nga ko gëm na nga ko jàppale qaala aqrartum wa aqadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min ash-shahidin nga xam ne loolu moom it suñ sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu wax nañu ko ay yoon yoon qad jaa fi alqur'ani ma dallana ala ma dallana maan ala taqaddumika almu'ti al'ataa'i almukammali li ahmad almuxtaari ma la yura abadan li gayrihi faaza man lillahi walaahu bam ba ay ay bayit yu bari la ni ko doon ni mu ëndee euh, xisam ñay mi bi Abraha dajalee am mbooloo ne day màbbi kaaba gi nga xam ne loolu li ci suñu borom jublu woon mooy wane ne am na yonent bi waa ji ñëw wane ne fii barab la bu sell boo xam ne maa koy sàmmal sama bopp loolu li Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu junj na ko bi muy bi muy bi muy wax xissa xissatul fiil ndax lu mu wax bi jaahihi wa jaala bi jaahihi wa jaala gi rek moom moom ma ci gën a ñor nga xam ne li tax euh, munta nga màbbu kaaba gi mooy ci dara daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, noonu la sëriñ bi continué it di wax kimtaan yi nga xam ne feeñ na ci bisu juddu bi leer gi ñëwoon ba muur ba ba ba feeñ ba muur euh, njënnay Xaysar yi ngeen njënnay Shaam yi mooy pale Shaam yi jóge Màkka ba Shaam nga xam ne diggante bu sori la woon loolu sëriñ bi wax na ko ci biir xasiidaam yi wa min xawaariqa bada ma xaaza garul muqtada salla alayhi man hada fuaadahu bil xikami nuurun azimun qad yara bihi xusuura xaysara man kaana fi ummi lqura makkata xayrul xorumi sawaras faris yi nga xam ne dafa giimoon bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam juddoo wane ne kon lu bon dafiy jóge lu baax moo fi ñëw xawat xawaariqu badat ani ruwaati sabatat kamis li naari nutfi at mi xaa idi xami Euh, saawata dex sa fa nekkoon moom it daal di giim ñi ñi fa daan ñëw di root ku ñëw doo fu fekk dara moom di wan ne caaxaan jeex na dëgg moo fi des wa aynu saawata allati qad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati wa euh, waaye tamit Kisra amoon na ab pale mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono pale bi daa daal di yëngatu yëngatu gu métti mel ne luy waaj màbbu iwaanu Kisran sadaa fiha wa qablu rufia samkun lahu fartafaa naxwa saman mukarram xatta sarirun kasara nga xam ne fii buur bi toogoon dafa mujj toj li aj jile xëw li tara loolu lu ko waral mooy min nuuri afdalil wara leerug yonte bi sallallahu alayhi wasallam la sees bi mënutoon a ndéeku buur bi mënu mënu ko woon a ndéeku wane ne kon benn sang rek moo am te sang boobu feeñ na waaye bi yonte bi sallallahu alayhi wasallam feeñee ba noppi nag ko yàlla may ci ay xar baax yu wane ne moom mii lañu war a yónni mooy sëñ Tuubaa am na yu mu ci junj bokk na ci yem ci junj mooy xar gañ xaroon dënn bi ba mu nekkee ndaw nekk ca euh, kër soxna Xalima mu koy nàmpal bi nga xam ni mi ngi foo xale yi Jibril ñëw jël ko tëral ko dindi dënn bi am lu mu fa dindi daa koy kastewaat loolu it sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu leeral nañu ko am na fu muy wax naan damiruhu nazahahu jibrilu bi kaffihi an kulli ma yamilu lu tax lu tax mu lu tax lu tax mu mu mu mu mu mu xar dënn bi mooy taharahul qudduus min uyubi bi shiqi sadrihi wa tardil wa tardil xuubi ba du mën a defati bàkkaar du mën a defati luñ koy luñ koy xeebe taharahu fi fi zahirin wa batini min kulli aybin barizin wa kaamini du mën a defati benn ayib moo xam muy ayib bu feeñ moo xam muy ayib bu nëbb nuziha qalbul mustafa an kulli ma yaxuulu baynahu wa bayna si sama lépp loo xam ne dafa mën a jaar digganteem ak boromam du ko defati sufiya baatinun lahu wa ma zahar fa abada al mawla kama bihi amar loolu moo taxoon mujj ak jaamu yàlla yomb ci moom bu bi bi mu demee bañ bañ bañ bañ war koo yónni ba nga xam ne tuutee ci des mu daan def mu daan mu daan debxaarul xiraa am na aw doj wu mu daan romb doj woo xam ne bu ko musaan romb doj bi day day nuyu yónente bi sallallahu alayhi wasallam mooy minha salaamun xajari waaw loolu Sëriñ Tuubaa juñ na ci xasida waaye am na beneen étape boo xam ne juñ na mooy bi ñu ko yónnee ba xaswatu badar bi ñu ko yónnee ak saxaaba yi njëkkoon a ànd ak moom bi ñu ko yónnee wanoon wane na ne ma ñalaan dem ci kaw asamaan si daan yëddu ay xibaar mujj na mënatuñ ko yëddu ndax booba fekk na suñu borom am na keneen ku mu waajal koo xam ne moom rek moo war a xam secret yi wa kan qidaadi shuhubi tardan li ahli riyabi an sami axbaari nabi wa rajau bi nadami turida fiha bin nujum an samawati rajim wa farra xaasiran yuliim bi xisbihi daa wakami am na faneen fu mu wax naan lahu ladallaahi sirrun laa yutaaliuhu bil kaddi wal ilmi ruhbaanun wa axbaaru nga xam ne kenn mënut kenn mënut a xam dara suñu borom daan nay kii daan nay daan nay daan nay tëj frontière yi wan kon yonente bi ñëw na léegi waajal nañ ko gis nga waajtaay wi jekke te yaatu waajal nañ ko léegi ñëw na léegi nag ku ku ko weddi rek ak soxar moo tax nga weddi ko sabata inda kulli man yadri layaat képp ku xam dara xam nga ne annam na abdullahi afdal ibad képp ku xam dara it sabata inda kulli man lam yajhadi képp koo xam ne weddiwoo wax nga rek te yàlla tax xam nga ne annam na annam anna abal xaasimi abdun mufradu am na fu muy wax naan képp ku weddi ne moo jiite ñépp juxuudu kawnihi raisal kurama juxuudu shamsin daxwatan fawqa sama dangaa mel ni ku fekk jant ci digg njool ci digg yor-yor nekk ci kaw asamaan nga ne jant bi amut ndax gis nga ne yi leer na nañu mm-hmm. lam yaxfa inda kulli man yajri layaat kaw na abi taahiri afdala ibaad moo fi gën mm-hmm. shawaahidul xaqi laa taxfa ala ahadin ndax shawaahidul xaq yi mooy yi njëkk a yi fi jaar yépp wan na ne kon kii moom mooy ndaw li mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam illa ala ahadin xaazal fuaad ama képp koo xam ne lu may koo xam ne suñu borom dafa muur sa xol imaayatul qalbi ku suñu borom muur sa xol nag kenn mënul la dara loolu jàngoro la daa un laa dawaa lahu illaa duxuulu ladan mahwa alladi dugg sawar rek mu la mën a saafara shawaahidullahi laa tax ala ahadin illaa ala ahadin ishqaauhu irtasama irsaalu ahmada laa yaxfa ala ahadin illaa ala yuxzihi mawlaahu ni jibril ñëwee ci moom loolu duñ ci duñ ci guddal ndax luñ xam la wasalliman ya rabbiya ala xitaami l anbiya walmursalina al asfiya imaamina al muazami wasalli ya san nicmati ala rasuli rahmati miqlaaqi baabi niqmati sababi kulli nasami salli wasallim man yaa salli wasallim yaa xadir ala sirajika al munir waxul bachir wa nadir mi ngi commencé wax mission bi yonente bi bachir la nadir la ci lu muy lu lu lu muy lu muy béglee mooy bi ni amin waaye ci lu muy xuppe mooy niqam bi ni amin wa niqami zaaka la zaaka rasulu raaxati mooy ki nga xam ne bu ñëwee noflaay day am wa zaaka raxbu raaxati mooy tab gi ki nga xam ne bu ñëwee loxoom day tàlli wa zaaka zul fasaaxati mooy ki nga xam ne wax ji dafa leer naññ zaaka rasulul malxani inni uxaatibul jamin musalliyan ala rasul musalliman ala rasul bi xisbihi fi kalimi fi kalimi salli ala mudathiri bañ ko yónnee ba mu demee ca soxna sa sàngo mi ngi koy junj foofu xayril waral mubashiri maaxil firal mutahiri wa alihi wa sallim salli ala almuzammili jaali dujal mu ammili haamin nadaalil murmil wa sahbi wa sallimi bi mu ñëwee commencé woote ñu saxaaba yi commencé jébbalu ki njëkk a jébbalu di xadija ali ibn abi taalib tege ci zeyd ibn xaarisa tege ci euh, abu bakar tege ci ak ñi nga xam ne ñoo jébbalu ci turam wax na it sëñ bi dem na ba wax ñu ñi njëkk a jébbalu seen melokaan ni mel loolu wax nañu ko wax nañu ko ca raaiya salla alayhi allazi fi ljahri xaddamahu musalliman tibqa ma yahwa wa yaxtaaru wal aali man bi ixtisaasin qad xawo sharafan ñoom dafa am luñ jegoo loo xam ne moo tax ñu am tedd nga li annahum lil wara saadaatu naxyaaru ñooy sangi mindeef yi ñooy seeni tànneef wa saxbihi l xurri man aqraanahum sabaxu ñi nga xam ne ñoo njëkk jébbalu man aqraanahum sabaxu id baaduhum haajaru wal baadu ansaaru ñu njëkk a am na ci ñoo xam ne dañoo ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàddaay am ñoo xam ne ba mu leen fekkee madina moom lañ jébbalu lahum ladallahi taxsiisun bi ma zafiru humun nujuumu li xawmin fi duja saaru lahum ladallahi tanwiilun shafaa'ilan izayalal kullu adnaasun wa akdaaru mooy kenn amu ci sikk rek bi nusxi lil xalqi wal imaani xaj jubilu def lu baax rek lañ fi nekkoon di laabire mbindeef yi ak di leen xamal gëm yàlla turan wa xafdi alladi alathu kuffaaru ak tamit di màbbu li fi yéefar yi indi woon wa safx wal xilmu dëban lil jamii kama kaanu yudiimuuna taqwan xaytu xaytu ma daaru waaye nag ña ca rawati nag mooy laa siyaman xulafa siddiqu ma umarin ñi ñoo ci jiitu abu bakr umar usmaanuhum wa aliyun niamal abraaru alayhum dahru ridwaanu ilaahi kama xadistanaaru euh, bi nuurin minhu anwaaru foo am na faneen fu nga ko wax sax wujuhi sihaabil muntaqa waajahu ridaam damay damay ragal ne day gudd noonu gis nga noonu la sëñ bi toppee siirab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bay wane yonente bi ni mu daan wootee daa ilallahi ala basira bi shiraatin taqiyatin munira sharian su leer nañ ñi la fi indi euh, xamal ne mbindeef yi dëgg ci wax te la lam daan wax ak di ko jëf yàlla rek taxul mu ko def kon mi wax mission bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daral wara bil xaqi fil aqwali bi wajhi li wajhi rabbihi wa fil afaali bi mu ñëwee daanat lahu bashaashatun wal qalbu xamaahu an qasdi siwaahu rabb daawu xulu daawaa xuluba latqiya bil adab ñi ko toppoon te ragal yàlla dafa saafara seeni xol jaar leen ci teggin wa baa anhu lashqiya bil atab ñi nga xam ne dañoo texee dina nga xam ne kenn mënu leen dara alkaani rek moo leen ca fekk daama kitaabuhu shifaa latqiya shifaa latqiya ñi nga xam ne dañ koo toppoon te ragal yàlla alxuraan moo leen doon gindi turan kama daama shiqaa la shiqiya waaye ñi nga xam ne toppul woon alxuraan euh, euh, seytaane moo leen doon gindi isra wal wax na ci moom it day gudd yaakaar naa mën naa nekk waxtaanu boppam xat aaba layla xat sabba nayla xat faaxa sayla min zil baqaayi la anta imaamu rusli xat jaa annahum ba mu taseeg yonente yi talaaqaw ko fil israayi walkul waqul ko xat salla jaraiya waqaabaluuhu bi mu ñëwee liñ ko fayee waqaabaluuhu bi suu in xaasidina lahu fii laylatin saara fiha huwa sabbaaru ba mu demee lam fa am fa xaaza ma xaaza min sirrin yu xassu bihi waxat daadana fatadalla bil munaajaati fa xaaza ma xaasa min sirrin yu xassu bihi walay sa yuxda bihi xalqan xalqun xawaaidama kenn du ko amati lam fa am kenn du ko amati salli ala saarin sama fawqal buraaqi li sama boo demee ci jës bu jës bul xulub waaye nag la ëpp solo mooy lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën a mën a mën a mën a mën a mën a am dara ji jooju yëpp mooy ñu ko suñu borom bindee da ko bindewut kenn ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàddaaye ak uh, nam àndee woon ak saxaaba yooyu yëpp sëriñ bi junñu na ko ci mm-hmm. junñu na ko ci junñu na ko ci ak ni ko xoraysin daan lore mm-hmm. lépp sëriñ bi mm-hmm. junñu na ko ak bi muy dem bi muy gàddaay ba mu fa bàyyee ali yi mu tëdd ca lalam ba mu ak dëgër dëgër gam amoon loolu bi na ko ci raaya nga gis ne kon gis nga ni siira yi ñëwee far ndànk-ndànk waaw wa min shajaatihi an baata mutajian fawqal firaashi wa xawla daari makkaaru alayhi burdatu xayril xalqi muttakian walam yusibhu min al makkaari israaru ba nim jeexe yonte bi bi mu gàddaayee ni mu àndee woon Abu Bakar ba nañ dugg ci xunti ba sëriñ bi junj na ko gis nga kon siira kon dafa leer naññi waman wamin xawaariqa bada ma xaaza gaarul muqtada salla alayhi man hada bihi dawit tafahumi bi an kabuutin nasajat jargoñ bu mu ñëwee nam farabbe maa xamaamin asbatat xawman bihi qad sadarat zaatay xima ka zulami bi tax mi ñëw ak nam fa def wal bi yéefar ñëwee lañ fa fekk wal kaafiruuna qad ataw wa adaral maa yi xafaw gisuñ dara wa minhu shay'an lam yaraw wa rajahu bil alami ñu rëccu naan ak ah, fii de wut si wut ñu fi woon dara ndax lañ doon bëgg amuñ ko wa huwa su tasatturu fekk mi ngi mi ngi ci biir xunt bi ma al atiqil akbari ànd Abu Bakar fil gaari mar'a nadari omara aw min arim nga xam ne bu ñu xooloon rek gis waaye daa mel mënu ñoo gis dara suñu borom moo gumbal seen bis xayman xafidil maanii yuxni anil madaafi waaye ko suñu borom aar aaru nga li kulli abdin qaashin yatlubu xayrul xurum bi muy dem di gàddaay suraaxa koy wëri ak bi mu ñëwee ni ni ni ni yaakaaram tase loolu junñu na ko ca ca ca raaya amma abubakar ni siddiq sayiduna fa lil jamii bi an qad faaqa iqraaru wa baana is rafaqal muxtaar waxdahuma fi dayqi naxwa mahallin fihi lansaaru is axrajuhu bi takdibin dañ koo génne ngir weddi ko rek wa baadahum mu bàyyi leen fa muhaajiran li makaanin ardu arduhu daaru mhm. dem ci madina gi nga xam ne fa la nar sax wajjahu naxwahu man waajaruhu ala ityaanihi fawqa tirfin wa huwa karraaru saaxu suraaxata banim njeexi ngeneen lu madinatu munawwara gam dem sëñ bi wax na ko ci xasida yi lu baree bari wax na ko lu baree bari euh, wax wane wane wane it euh, li tax mu gën dëkk yëpp ak it ni mu ni mu fa bëggoon a dem suñu borom gàllankoor ko mooy ni mu bëggoon a aji loolu sëñ bi wan na ko bi ñu noppee ba xew-xew-xew yëpp jàll ba ñëw ci xare badar nga xam ne mooy xare bi njëkk ci lislaam xare bu mag bi njëkk ci lislaam moo ngi tusaaroo na ci mbindum sëriñ bi lool Euh, boo demee ci gës bu leer na fa naññi naññi naññi naññi salli ala laysin shafa bi yowmi badrinis wafa mahasi habil xunafa bi ahdihi lmuazami ba nim jeexe ca miimiya moom it leer na fa alayhim dëhr ridwaanu alladina sa ridwaanu alladi salaku fii nahjihi kullu saxsin yattaqi ni xamaa nga xam ne fii moom saxaaba yi la fi doon saxaaba yi ni ñu dëgëre ak ni ñu doon xeexe ak seen gëm yàlla ni mu ni mu tolloon bi ak ni mu feeñee ci xare bi loolu lépp leeral na ko ci xasida ak miimiya kon daal muy ay xew-xew ak i jaar-jaar yoo xam ne benn bu ci ne mënees na ja taxaw mhm. euh, indi ci ay bayit ba noppi delloo ko ci mhm. euh, li li nga xam ne moo wér ci histoire mhm. waaye yaakaar naa mën nañ cee mën nañ cee gàttal foofu macha allah macha allah Cheikh Abdou Khadir wax ji am na am na solo lool tabarkàlla te itam dégg nañ ci bu baax a baax tam ne bi daal euh, doonte tagg ak julli ci yonte bi sallallahu alayhi ci siiral ci jaar-jaar yonte bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk waaye itam boole woon na ci li ñaan leeral dëgg-dëgg jaar-jaar yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy njëkk muy gane àdduna moom mooy kan ay ak aw askanam ak e, mbooleem li nga xam ne moo aju ci yonent bi sallallahu alayhi lépp ak juddoom li ci borom xam-xam yi wax ak moom position bi mu ci am ak itam e, yónni gi nga xam ne moom nañ ko yónni ak mbooleem yi nga xam ne itam moo ci moo ci ajuwaat yëpp rek moo xam euh, al isra wal miraaj la moo xam xasawatu badar la ak mbooleem li loo xam ne rek aju na ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sëñ bi indi na ko ci xasida yi mhm. waaye nag li ci mat a leeral rek mooy da koo bindut mu nekk benn téere wala mu nekk wala mu dajaloo fenn mhm. waaye day def léeg-léeg mu ñëw wax ko fii léeg mu ñëw wax ko fii mhm. kon nii nii nga ñu ko indale nii leeral nañu ne sëñ bi bàyyiwul dara ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi na ci lépp loo xam ne luñ mën a jariñ luñ mën a jariñoo la ci moom te loolu itam moo nekkoon jubluwaayam mooy liggéeyal ko fu mu mën a toll ni liñ ci mat a li ci mat a leerlu itam mooy li ci mat a xamaat itam mooy seen bi ndekete du bindantu nii rek waaye suy bind day fekk mu liir mbooleem luy téere xam-xam mm-hmm. ak li ci borom xam-xam yi wax ak niñ ko waxee ak la ca gën a wér ca ñoom mu jël ko indi ko ci mbindam waaye day mm-hmm. day di daw itam mbooleem loo xam ne mooy ay ay wuute ak yu ni xool la ca gën a wér la ca gën a euh, euh, lëng mu ñëw indi ko ci mbind yi jàppe ko muy muy mu gën a yomb ci ñun jërëjëf sëñ Abdou Khadir kon xëy na fi ñu mujj rek ngir tënk jotaay bi dafa mel ne mi ngi xaw a gudd tuuti mooy sëriñ bi yemul woon rek ci di ñu leeral jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci biir mbindam ñi ngi ciy gis euh, melokaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi turi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi ak jikko yi nga xam ne moom la amoon nga xam ne moom nañ ko mën a royee ak ki itam keemaan yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi am na ko mel na ne itam loolu fes na loolu ci mbindi sëñ bi bu defee ci euh, laaj boobu rek ñu daaneel ñu tënk ci tuuti rek ngir man cee daaneele waxtaan wi ok jërëjëf sëriñ Seexuna wax nga moom it tomb la bu am solo bu yaatu muy tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak i melokaanam ak i kimtaanam ñu ñëwee ci biir mbindum sëriñ bi bu ci ne bind nañ ci ay téere yu du jeex borom xam-xam bind nañ ci téere yu du jeex asmaul rasul bind nañ ci téere yu du jeex wuute nañ ci wuute bu du jeex nan la toll ndax dafa mel ne melow bu baax woo jël rek boo ko tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo mën a dem ay melokaanam moom it bind nañ ci lu du jeex moo xam ni meloon ci compo carcasse bi ni ni meloon mhm. wala biir melokaa ni biiram muy ay jukkoom waaye ay kéemtaanam moom it du jeex waaye kéemtaanam ba ci gën a mag mooy alxuraan mhm. bu dee tuur yi mhm. euh, mën na ma indi ñaari xadis rek yoo xam ne xaw na koo tënk ñaari xadis yoo xam ne xaw na koo tënk xaw naa tënk tënk tur yonente bi sallallahu alayhi euh, benn xadis bi mooy dafay wax ne Euh, Bayhaqi yi moo ko wax jële ko ci lenn ci borom xam yi mooy day wax ne suñu borom tudd nañ ci alxuraan yonent bi tudd na ci alxuraan rasul tudd na ko nabi tudd na ko ummi tudd na ko shahid mubashir nazir daaiyan ilallahi bi isnihi tudd na ko siraajan munira tudd na ko rauf rahim tudd na ko nazir mubin tudd na ko muzakkir daal koy def rahma def ko neexma def ko muy ab kuy gindee nga xam ne kon boo xoolee euh, lépp rek turam yépp comme ni ko Ibnu Xayim waxee yépp ay nuxuut la ay melal la yoo xam ne nekkul ne euh, benn alam la loo xam ne màndarga la rek comme ni ñuy waxee fii léeg-léeg nga xam ne aw tur doo xam mi lu muy wund déedéet waaye tur yonte boo jël rek am lu muy am na am na am na am bu dee xadis bu njëkk bi ma doon wax xadis bi Jubayr ibnu Mataam moo ko nettali ne yonente bi nee na maay Muhammad ana Muhammad maay ahmad wa ana ahmad kon muhammad ak ahmad maay maaxii mi nga xam ne yum xaabihil kufr boo ñëwee ak kéefar du fi amati maay xaashir mi nga xam ne maay jiital nit ñi ñu pàng leen maay aaqib mi nga xam ne boo fi ñëwee kenn du ñëwati nekk ab jorente loolu mooy waaw mooy maa fii mujj loolu mooy xadis bu njëkk bi xadis ñaareel bi ñu jëlee ko ci abi Muusa al-Ash'ari mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ñu tuddal ay turam daana wax ne man maay muhammad maay ahmad maay muxafa maay xaashir maay nabiyu tawba maay nabiyu rahma léegi nañ jéem a xool yooyu ci biir mbindum sëriñ bi ñaari xadis yooyu rek bu dee muhammad wax na ko lu dul jeex rasuluna muhammad salla alayhi samad maa salaamin yuhmad wusifa bil mufaddali ahadu salli wal tusallim sarmada ala lasi sammaytahu muhammada loolu leer nañ maay ahmad gi mu wax gi waxoon man laktu ahmada siniin kulli waxaada lil funun faneen mu wax ne yallaahu yaa ahadu salli sarmada wa salliman ala nabiyi ahmada yallaahu yaa samadu salli sarmada ala nabiyi arabiyi ahmada gis nga kon mi ngi wax tur yi bu dee maaxi barakatul maaxil wali zaanat rabial awali bil maalikil muxawili muxnin muxnin dawit tafadduli salli ala baabil huda naa il mada muulin nada laysil ida maaxir rada gis nga moom it leer na salli yaa rabbana salli ala maaxin azalal wajala nga dalay waxaale mission bi wala boog solo si turu maax yi am xaashir moom ñëw na ci am mbindam ak bam bam ba ba yooyu yëpp jeex xaashir ñëw na ci ak ni ñu ko waxee woon sànq yeneen tur xaashir am na fu muy wax naan lakal wasilatu yowmal xashri min malikin ixtaara kawnaka saa sabqin wa ajraahu muhammadin maska il axyaari qaidana li jannatil xuldi yowmal xashri yallaahu bu dee ñaareel bi muy maax yi moom it fii mooy fi mu junje benn bu ci ne li muy def waaw maxa dalaalan wa kufran kan nifaaqi maa alayhi taslimi mugnin lam yazal samada euh, bu dee ñi ko yàlla bindee woon nag sifaat yi waaw mooy yonent bi ku taaru loon taar boo xam ne am na fu mu waaye amut fu mu nabiyi nabiyun jammalallahu daatahu suñ boroom moo ko taaral kama ahsana al bi tuhri wa ruqi nim nim ni rafetale jukko yi noonu la ko taarale muhammadun axjalat anwaaruhu xamara boo ko méngaleeg weer weer wa day am gàcce wa kulli shamsin xawat fi dawi abhaahu boo ko méngaleeg jant jant ba day am gàcce nabiyun nabiyuna lam yakun charwaahu fi lxudama nuroowut ak kenn ci ñi fi jiitu woon wala yura sarmadan fi lxalqi charwaahu du nuroo kenn it nabiyi nabiyun jammalallaahu xalqahu wa axlaaqahu ni ko yàlla taarale eh, melokaan yi noonu la taarale jukko ji waaye nag ni mu meloon ci zahir moom suñ suñ tubaa wan nañu ko ci jës bul xulóob yaa mulhiman qad wafaqa salli man xuliqa wal xalqa faa xulqa kal xalqi wal tusallimi ku digg doomu woon la jaali sutut la woon nekkutoon mufrad nekkutoon aadam mm-hmm. euh, nekkutoon mu mutaham mukalsam damay ragal ne waxtu yi day waaj jeex moo tax waaye benn bu ci ne firi nañ ko mm-hmm. bu dee ni jukko yi moom it kenn xamu nu mu ndax dafa bari woon mm-hmm. ba sëñ bi sax day wax ne kenn mun kenn mënu ko lim wana kullu si ilmin wa saayin wa rutbatin an mustafa fi xulqihi l xaaisil ulwi kenn mënut a xam nu mu kenn mënu koo wax it wajihun la woon ku ku ku ku ku jaaroon yoon la ku àggoon la ku ku demoon fa àgg yemoon la ku yaatu woon la waaye ku amoon ay saxaaba la yoo xam ne ñu baax lañ wajihun wasulun waasilun waasiun lahu sixaabun bihim anaan yallahu an la wahaab ku mënoon wasila ila ku ku ku ab jaaruwaay la woon ngir àgg ci suñu borom ku mat mënoon matal kóllëre la ku baaxoon la lu mu la musaan dig jox la ko wafiyun karimun waaidun waxduhu ata bihi li siwaana maana dul jawri bi raawi ab wali la woon ab nabi la woon boo xam ne suñ borom da ko yónni woon ci mbindeef yépp waliyun nabiyun lil baraaya nabiyun rasulun xayru abdin wa dafa bari dafa bari lool ci xasida yi kenn xamuñu toll haadin mujiiru nuurun muniiru gaydun bashiru lil ihtidaay xaamin nasir lu lépp ay melokaan la ay jukko la daain basiru laytu nadiru li si ixtidaay mushkil li shaak ku musaan am tawat boo ñëwee mu fajal la ko bishrun lu baax ku musaan am lu lay jooyloo boo ñëwee mu bégal la musxin li xaak loo ko musaan di nett li mu diglu la may la noppi watini daa i mun jin li saalik képp koo xam ne dangaa nekkoon di sóobu boo ñëwee mu jaar la yoon bu lay musal man jan li naasi képp kuy jaamu yàlla mooy làquwaay bi jaali xawaalik lépp lu musa lëndëm moo koy moo koy wuññi an sittiqaay xun mu faqiir ku musaan ñàkk ba ñëwee mu woomal la jabru kasiir ku musaan am problème ba ñëwee mu fajal la ko seetu xaqiir lu waaye xeebu xeebu ba ñëwee ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam mu may la daraja baa xiiw wiqaay wa huwa al jaliyu wa huwa <laughs> kenn xamu nu mu toll jukko yi moom kenn xamul nu mu toll wa huwa an najibu lasi fi wasfi xilqatihi wa xulqihi qiila tas jaaun wa ashaaru ku ne ci wax waaye mënoo ko lim walam yaji min sawil iflaaq wal bulaqa bi saj'i wa shi'ri mimma xaaza mi'shar da ngay wax ba doyal rek waaye asaka ji doo ko wax mukk ahlul fasaxati turran bi thana madahu wa laysa yutraku bil akwaabi tayyaaru kaab wax na ba sonn xasaan wax na ba sonn busayr wax na ba sonn ñoom ñëpp seen way yi neex na waaye mënuñoo wax kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam liñ ci mën a wax daal mooy annahu basharun wa annahu dunahu aqlun wa afkaaru kenn mun a xam nag nu mel xel mënu koo dab ay xalaat mënu koo mënu koo kii bu dee kimtaan yi moom it bari moom it lool bari lool mu lool waaye mën nañ ko seetlee ci ay xaaj boroom xam-xam yi niñ koy seetlee wuute ci lool waaw waaye ci gàttal mën nañoo wax ne am na ay kimtaan yoo xam ne kimtaan maanawi yi la kimtaan yi maanaa la nga xam ne des ko làmbu daj ko des ko xool gis ko waaye lu ñuy yëg la bi ci ëpp solo mooy alxuraanu karim mooy kimtaan bi fi ëpp mooy al mu'jizal xaalida nga xam ne du fi jug mukk saa yoo ko xoolee rek mu lay wan yonent bi mm-hmm. ci wàll yëpp ci côté yëpp mm-hmm. di la wan yàlla ci wàll yëpp ci côté yëpp mm-hmm. moo tax gis nga alxuraan ni ko sëñ bi def looloo tax sëñ bi fonkee ko noonu looloo tax mu ko daan kañe noonu looloo tax sëñ bi bëggee woon alxuraan noonu loolu tax mu daan tere la ñooñu alxuraan noonu loolu moo waral daara yi tusaaroo loolu moo waral ay daara yi kaamil loolu moo waral mbindum mag ñi kenn xam nu mu ndax lan mooy almujisatul xaalida tilkal xawaariqu ma zalat tu ay yiduhu yonente bi amoon na ay kimtaan yoo xam ne moo ko daan dëgëral id lam yazal xilluhu yaati bi ayaati xatta ataa bi kitaabin ajazal bulaxaa indi na fi téere boo xam ne kenn mënta wax lu ni mel wa kalla an mislihi ahlul fasaaxaat ñi ëppoon fasaaxa mënuñoo mënuñoo kii téere bi commencé nag di tàgg téere bi ak kayum bihi min kitaabin qad shafaa ilalan fa anqasa saxba turan min xabawaati wa huwa alkitaabu lasi laa rayba fii hudan bam jeex tagg wu neex a neex neex ci alxuraan bokk na ci kimtaan yi maanaa yi mooy léeg yu yonent bi sallallahu alayhi xeex ba ci digg ba suñ borom ñëw sotle ko nu mu koy sotle mooy day yebal ay malaaka ñu jàppale ko ci xeex bi loolu am na ci xaswatu badar am na ci ay yenn yenn ci ay xare ngir dimbale koy yonent bi sallallahu alayhi loolu it suñ sëriñ bi juññu na ko ci xaswatu badar moom la doon wax naan amadduhu rabbul anam bi jum di am laakin idaam li adadin laa li lixaam ardaw zawi am na faneen waaw ba ñetteel bi mooy daana ko dimbalee ngelaw daana ko dimbalee ngelaw suñu borom ñu ngi wax ci ahzaab yi naan yaa ayyuhal lazina aamanu uzkuru ni'matallahi alaykum iz jaa'atkum junuudan fa arsalna alayhim riihan jékki-jékki ngi def ngelaw lu mag ñoom ñëpp ñu daal di am na xadis boo xam ne Buxaari ak muslim ñëpp nettali nañ ko jële ci ibnu abbas yooyente bi daal ne nusirtu bis saba wa ahlakan aad bid dabuur ngelawul sabaa daana ma dimbale moo tax suñu tubaa di wax naan kaana yuinuhu riyaax kama yuinuhu rimaax ni mu daan yore ay xeej di xeex léeg-léeg noonu la ko suñu borom di dimbalee di jàppale ci ngelaw bokk na ci kimtaani maanaa yi it mooy ni mu daan gisee ci kanamam noonu lay gisee ci ginnaawam moo tax léeg-léeg bu musaan di jiite julli luñ ko luñ musa luñ musa def ci ginnaaw rek bu noppee corrigé leen waaw kaana yaraa kaana yaraa waraa wa ar wa aynuhu kaanat tanam wa qalbuhu lam yanam ju mooy waxal bu lam yeneen mooy juróomeel bi mooy léeg-léeg yonent bi daana gëmmu nga gis ay bëtam muur waaye xol bi nag du nelaw mooy kaana yusilluhul xamaam yara waraa wa amaam wa aynuhu kaanat tanaam wa qalbuhu amaat yeneen kimtaan nag ci jamaadaat yi yàlla bind yeneen kimtaan ci gàncax yi doy na ci sëkk ñu wax ci ñi ko yàlla xarale woon weer wi waaye doy na ci sëkk am na ay xadis yii yëpp am na ay xadis yu ci waaye damay damay damay wax sa bi rek doy na ci sëkk it ñu wax ni garab gi ñëw woon di dox laka sarxu xasaarat bi saaqin bi daawatin kaman shaqa badrun shahidun damma bil fadli nim daan niñ daan ñàkke ndox mu jékki-jékki bari ndox mi lool wala ñu ñaan ko ndox mu jékki-jékki loxo yi di ball ndox am ndox di ci génn di jóge ci ay baaraamam loolu it ci ay xadis yu wér sax na min ha tawassulu tuyur bihi lahu shtaka bair wan fajaran maun na min min yadisi takarrumi léeg-léeg bu musaa ñaan ci benn barab ndox mi bari fa lool ngir barkeem yépp sëñ Tuubaa wax na ko wax na ko taw bu bari bi nga xam ne ñaanoon na ko mu am xaysun ya fuuru biirun fuuru léeg-léeg daana yor aw ñam muy sàbbal ci ay loxoom loolu ay xadis sax na ci sumiha tasbihu taam fii kafi afdalil anam xita kéewal wax naag moom wax ju leer naññ ñëpp di ko dégg jotaay ba ñëpp di ko dégg loolu ay xadis sax na ci garab jóge na ca barab ba mu nekkoon ñëw di fekk si bi ñëpp di ko gis loolu ay xadis sax na ci yon suñu wax na ko waxóolle sin chaqa tasdiqan lahu xamarun wal jisho xanna lahu taswiru fi xasari mooy fi nga xam ne fi la fillaan toog di xutba mm-hmm. noonu la ko amee woon ci yu baree bare bare kimtaan yi daal bari na mm-hmm. tayrun yu azim picc mi nga xam ne mm-hmm. da doon wax ñëpp di ko dégg muy kimtaan yoo xam ne boo demee ci xasida gu ñu wax mashrabu saaf yi da nga ko fekk boo demee ci miimiya da nga ko ci fekk boo demee ci mawaahibu naafiya da nga ko ci fekk boo demee ci jës bul xulub danga ko ci fekk yooyu yëpp ay kimtaan la yoo xam ne euh, ñëw na ci mbindum sëriñ bi tusaaroo lool borom xam-xam yi saxal ko mhm. waaye sëñ bi nag ni mu daan bindee ci siira daan ko bindee ci turu yonent bi daan ko bindee ci melokaanam mhm. waaye dafa mel ne dañuy dañuy seetlu ne li ëpp ci mbindam li mu daan gën a fésal mhm. mooy kéemtaan yi ak melokaan yi jukko yi ndax jukko yi ci nga koy mën a roye waaye kéemtaan yi it moo lay gónni ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo lay xëcc moo tax da gis bu duggee ci yi day mel ne du gaaw a génn waaye bu déggee ci xissa boo xam ne dañ ciy wax luy metti yóne luy luy mettital yónente bi wala lu koy néewal doole da ngay gis day gaaw a génn moo tax gis nga ci mbindum sëriñ bi doo ci gis xissab yónente bi ak yéefar yi lu bari mhm. surtout xissa buñ koy lore wala yu mel noonu mhm. loolu lépp bëgg gi ak tamit xool li nekk priorité mhm. mu koy wax di ko wane yaakaar naa bokkoon na ci li ko waral macha allah Cheikh Abdou Khadir kàddu yi am na solo loolu waxtaan wi mu mel ne jëlee nañ ci njariñ Seexul Xadim radiyallaahu taala anhu ni mu ni mu nekk it aalim mawsuwan yi mooy boroom xam-xam bu matale ndax day mel ne mbooleem lu muy nettali ci yonent bi sallallaahu alayhi wa moo xam ay tur la kéemaan wala lu mën a doon rek boo demee da ko fekk ci xadis wala nga fekk ko ci alxuraan wala nga fekk ko ci téere boroom xam-xam yi ñu wax ci lu baree bare mu ñëw it leeral ñu ko leeral gu gën a leer dugal ko ci biir xasida yi it ñu di ko jàng fu ñu toll di ci gën a bëgg yonent bi sallallaahu alayhi wa bu dee kéemaan yi la euh, bu dee CFA di ak melo yooyu itam ñu ñu koy ñu ko ciy gën a mën a roy bu baax a baax kon mën nañoo jàpp ci biir waxtaan wi ne sëñ bi bind na ci siira bind ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa mbooleem loo xam ne rek mën naa jëriñ nit ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa te itam li mu ci bind it du lu mu fabriqué du lu mu indi noonu rek waaye mooy li nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi bind saxaal ko ba dëggal ne lii nii la amee sëñ bi ñëw daan ñu koy indil doon li ci li ci li tax rek nit ñi jàpp ne xëy na indiwu ko mooy ni mu tisaaroo ci biir xasidaam yi lu mel ne jësbul xulub raay yay bëri na ci yoo xam ne indi na ci yu bëree bëri kon ñi ngi sant bu baax a baax sëñ bi ci waxtaan wi am na solo lool macha allah kon xam naa ñu jox la kàddu gi rek bu defee nga tàggoo bu defee ñu yëkkati jotaay bi ok jërëjëf sëriñ Cheikhouna xanaa di santaat di gërëmaat di wax ne lu ci lëndam xëy na ci fasuk laam mi ngi lay doon mhm. ak tamit yaatuk yaatuk bi mhm. waaw tem bu yaatu la boo xam ne neexut a tënk boo ko jéemee tënk rek léeg mën naa indi ay jafe-jafe mmh. xëy na loolu moo koy waral di santaat bu baax a baax mbooloom kuréelu euh, liggéeyal ku tedd gi ci boole gi ñu boole ci liggéey bi ak yaakaar yu ñu amoon ci ñun mmh. di ñaan yàlla bi suñu borom tam yaakaar di santaat ñi ñu doon teewlu ñëpp ci chaîne daayira Moukhaddamatoul Khidma GMT TV di leen gërëm di leen jox di daje ci beneen jotaay salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Cheikh Abdou Khadir jërëjëf kon mu mel ne li ñu cërale woon ci waxtu. mat na sëkk ñu sant sëñ bu baax a baax ci waxtaan wi mu mel ne waxtaan yi rek mooy waxtaan yi nga xam ne moom la kuréel liggéeyal ku tedd ki di amal di ko waajale gàmm gi guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ci waxtaanee mbooleem loo xam ne aju na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay jaar-jaaram di ci indiwaale itam seexul xadim radiyallahu taala anhu ni mu bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi wa ni mu ko daan liggéeyale ak ni mu feeñee ci ay ak ak yooyu yëpp rek te ñu àndoon ci ak suñuy mbokk waa daayira muxaddamatul xidma ak seen seen télévision bu mag bi di CMT TV yàlla nag ñun liggéey bi ñu leen di sant bu baax a baax ci teewlu bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu